candidature pour man du pléthore pléthore de candidature euh, féminine moom mooy tax euh, niveau bi relevé que ça soit du sérieux sérieux nag bi nga xam mais du sérieux xam ngeen seen commentaire yooyu ngeen door déjà ndax parce que c'est des candidatures de femmes ñu mm. taxaw ni il faut que ça soit du sérieux maa ngi gis il y a quelques jours la première fois bi ñu defee à la une de deux ou trois journaux la candidature de Anta Babacar Ngom mais la dame qui la revue de presse en tout cas ci benn ci chaîne ko tudd occulté complètement pourtant sa photo était là mm. ils ont mis le privé à sa, candidate et mais boolewu ko ci revue de presse bi te pourtant day yëkkati journaux yi di ko gis mu nekk à la une loolu moom mooy stigmatisation bi ñuy def ci femmes yi mm-hmm. te moom la ñu war a bàyyi parce que quand même yaa ngi ñëw femmes yaa ngi dugg ci politique bi mm. li tax ñu di leen jàpp femme comme ñu ngi wax naan sa place n'est pas dans les prisons effectivement ndax rôle bi ñuy joué bari na te cas bii muy kaawu may mën a ji metti na ñëpp. parce que femme la boo xam ni maama ni ko ñefe na ba ba nekk euh, maire. Mm. ah te mi ngi doon gérer maireem. Mm. waaw léegi nag politique bi jaxasoo na actuellement au Sénégal. Mm-hmm. jaxasoo na ba nga xam ni kenn xamatul sax looy wax walla looy def parce que loo mënti wax ñu yàpp la. Mm. te loolu nag il faut ñu seetaat ko. Mm-hmm. fu ñu seetaat ko. femmes yi nag ñu ngi bari ay candidates actuellement c'est awa euh, awa ah, awa non non awa awa Diop Mbacké mm-hmm. mais c'est une candidature boo xam ni on la prend comme ça mm-hmm. sérieux bi ñu war a def te ñun looloo tax affaire ñu jóg mm-hmm. dañu bëgg jàppale femmes yi pour ñu nekk ay leaders aussi bien sur le plan politique que même pour les postes de direction ak les les PCA boo gisee bu ñu leen di nommer góor ñi la ñuy nommer. Mhm. waaw c' est des postes d' ailleurs qui sont politisés mais bu choix jotee góor ñi la ñuy nommer. Mhm. ñu ne dañu bëgg vraiment la présence des femmes dans les postes de décision. à mhm. tous les niveaux qu'ils soient des postes politiques ou pas. gis nga y a l' des femmes de l' administration. qui sont en train de se battre parce que elles ont remarqué que bu ñu demee ba promotion jot. góor ñi la ñuy promouvoir bàyyi leen te ñoom ñu ngi liggéey lu mujj ayib. Euh, ci li ñuy liggéey la même chose aussi dans le privé. Mm -hmm. vraiment yooyu nag loolu moom la affaire di di di jéem a xeex. Mm-hmm. et à travers maintenant cette lutte là on a d'autres ça c'est l'objectif global. Mm -hmm. mais les objectifs spécifiques c'est augmenter le leadership des femmes. Okay. et ça li ñu ci fas yéene mooy gis ay femmes jàppale leen ku mel ni tey cette awa même si elle de Benno. Mm-hmm. quel que soit le le, le parti bi bi ñu bokk euh, les femmes les candidates femmes pour la présidence les les femmes qui aspirent à être ministres on voudrait les former jàppale leen encadrer leen les députés même celles qui sont déjà élues mmh. parce que actuellement il y en a qu'on manipule véritablement même au sein de l'Assemblée mmh. on voudrait voir dans quelle mesure les former ba ñu góorgóorlu ba concentré wu ci li leen fa yóbbu xam seen rôle rendre compte en criant en insultant wala leneen que la ñuy def seen liggéey mais mm. am nañu lu leen doy bu ñu amoon capacité liir documents yi ñu leen di soumettre loi yi nga xam ni bu ñu ko xasee ba jël impact bi muy am sur les populations mm-hmm. sur la vie de Sénégalais bu ñu ci attirer seen attention dinañ xool ndax dañuy taxaw rek di tàccu wala ndax dinañu xool gëstuwaat bu baax balaa ñuy nangu ñuy voter benn loi. Mhm. donc yooyu sensibiliser leen sur ce plan là moom la ñu nar a def. y aura des ak yëpp. Mhm. y a on cherche aussi à améliorer l'autonomisation des femmes à travers euh, l'amélioration de la chaîne de valeur. Mhm. actuellement ñu ngi ci transformation yi ak yooyu waaye ñu ngi ci saabu yu ña xawoon du ma ni ñàkk na fayda gaa am na lu mu leen jëriñ mais mën nañu dem fu gën a sori waaw fu ñu mënee defar jus dugal ko nii daal di ci bind seen tur wala yooyu mais ci bouteille yi mais jus boo xam ne ñetti fan au plus mu yàqu ñu mën def ay euh, jus yoo xam ne day conservé wu man maa ngi am une sœur boo xam ne en France jus de bouy ak jus de euh, gingembre lay defar mais elle le au supermarché en mm. France donc façon bi ñu koy defaree ba nga xam ni sa se conserve. Mm-hmm. man fan yee jënd naa benn jus le lendemain ma ubbi ko mu pousse ba ca plafond ba. explosé pratiquement ci sama kanam. parce que dafa des formation bi. waaw formation bi moo des mais ñu def yoo xam ne dañuy am vraiment euh, bu ñu mënul am bëgguma tudd marque mais euh, le jus naa ivoirien bi nga xam ne c'est en canette. Mm-hmm. mais qu'on puisse avoir des jus de bissap en canette. xam nga. waaw donc ñu xool nu ñu mënee vraiment améliorer les revenus des femmes mais ne pas aussi se limiter à des revenus yoo xam ni bu ñu ci jëndee tuuti du ñu mën sax fay seen éducation doom yi ba mu mat